asalaamaaleykum. asalaamaaleykum wa rahmatulah taalaa wa barakaatu. Sey Touré. ñu ngi nuyu l'ensemblement adduna bi. ngay sànq. di nag tey tey foofu rek lañ koy kal. waaw ma bi maanaam ku ko dégg rek. jàppal ni waa Allo 12 jox nañ la loxo. waaw nuyu la ni la ka jàpp. mi ngi noonu nag joyeux anniversaire Seydina Thiam. ngay sànq Thiam Babel Demba Thiam borom Belgique. macha allah Seydina Thiam nga xam ne sunu xarit di seetaan Allo 12. dëgg na xel waa itam bi nag. Touré dafa am loo xamante ni mi ngi lëmbe réew mi metti ñëpp ñu ci wut saafara boobaak léegi avenir réew mi ñu ngi koy kidnappé di ko sax-saaxe ak di ko sacrifié c'est pas lan la na kaas ko léegi les petits parentali les innocents ñi xamul dara ñi nga xam ne xamuñu lu dul papa may ma tàngal papa où est maman maman papa tata comment tu vas bàjjan namm naa la xale yooyu luñ jël kidnappé leen xam nga lan mooy dëgg assassination bii ñuy def les petits enfants ndeysaan il est le temps ñu xam qui est coupable dëgg dëgg mën na turee dama ni woon am na baat yoo xamante du ma génne sama génn waaye bu ñuy wax doomaraam sàcc du xale mooy doomaraam doomaraam pire lanu nga fekk moomi lu yàlla billaahi koo xam ne xamul lu dul biberon dégg nga ak sama couche waaw yaa ngi dégg sama purée. <laughs> barke yu xale yoo xam ne xamuñu. waa yéen waa yéen bu dee da ngeen amul lu ngeen dundale xale yi. dëgg dëgg. wala bu fekkee xale yi dañ leen sonal. Touré yegg seegunu foofu. waaw mais lépp loo gis ab àdduna ay période la. dafa ëpp waay. waaye bu ne ñu ngi dëgmal élection rek. ah waxuñu benn politicien moo sacrifié xale. ah, ah jommi jiiñu ñu ko wax ndax nat. moo ko jiine police déedéet ko benn police. ay da koy waaye dañu ni <laughs> def nañu jàngat ak càmbar gis ni xool nañu ba xool gis nañu ni saa bu élection jubsee xale yi tàmbalee. waaw yow léegi da nga ko bëgg jiiñ politicien. jiiñu ma ko benn politicien Touré li ma wax dafa leer. waa déet boo nee sëy eh. xam nga lan la boo nee. dañu seetlu ni bu demee ba élection di waaj a am si lii di am. wa wa dañ ko seetlu. waaw ñan ñooy élection du politicien yi. ñiy voté ci élection yi la du bokk. <coughs> ah waaw <coughs> développé bu ko defee nag. Uh-huh. xale yi di dem. ña koy jël consciemment def ci seen bopp ni li ëpp ci li ñu wax nee nañu xale ya dafa am ñu leen di laaj ngir sacrifier leen. ngir yokk sa daraja. Ah. mbaa jox la daraja. sëy waaw coupables yi boobu ba léegi ñu ngi koy wër si réew mi. am na ñoo xam ne dañuy ndur ndurlu xale te duñu xale. xam nga seexu sérifu waaw waaw waaw mel ne seexu sérifu waaw barke yurinti bi di daj buy mais mais Eh. mais mais loolu li la koy mooy. mag ñi njëkk ñi dañuy dell si waat de. déggoo am na non de eh. loolu am na xeetu mbir yoo xam ne xam nga tey jii ku mel ni yow. waaw bu wotee ay faasam. waaw waaw. ci mbedd bi. waaw da ngay yow day jàpp ni xale ay boo ma jàppee bëgg maa rey. parce que sa tax tabaar. <laughs> dégg wax sa taay moo ko tax xam nga am na benn ñuy dox ba yàgg benn grand këf la. waaw daw lu yàgg. Eh, dama ko màtt. dama ko fii laa ko am na ñoo xam ne boo leen yaakaaree xale ba nga romb leen barke yonent bi xam nga xale bi doon wax tey tey tey yoof naan ka bàyyi ba jumaa ji di ko nga xam ne lépp a dëgg xam ni kooku doon xale xam nga kooku am na ci benn xale boo xamante ni macha allahu rabbi doomu Abdallah Diouf macha allah mati mati da ngay toog di nga nee na mu waaye la ka ba yow nga nelaw <laughs> te booy bi amul lu dul sept mois ba tax na nag sàccum xale yooyu waaw Touré dafa créer traumatisme ci biir kër dans la famille xale bi bu génnee fooy sax boo gesoo gisoo sa doom sax salliru waaye dem na <laughs> xam nga lan mooy dëgg sëy hmm. réew mi ci boppam hmm. occasion la lu mel nii ñu am hmm. luñ ci jàngat lu rëy parce que yow boo yaakaaree ni Serigne Cheikh Al wax na ko radiyallahu taala nee na yow boo yaakaaree sa noflaay mooy sa doom demal fo wi ah juum nga diw nday gàmmu mun la naam nga ne demal fo wi dégg yow boo jàppee ni loolooy sa noflaay mooy sa musiba dëgg la te xale yi ci boppam danoo manqué affection de maman ah, xale yi ça fait l'occasion xale yi seen ovation entre ñoom ak parce que man am na ovation su ma ko déggee mooy affection am na benn sama benn fans boo xam ne mm-hmm. dafa jooy hmm. ma ni ko mais yow yow la ngay jooy mu ne man dama manqué dama manqué offension famille sama yaay aw ma sama parent offension ma ne ko mais sa parent la moo tax amoo offension si moom mun ma day xëy liggéey bàyyi ma fi xëy liggéey noonu laa dundeek moom bon ni ma màggee. Ah. moo tax bizarrement sax su ma woowee téléphone des fois sax duma ma ko wuyu wala defaa mu yónnee ma rappel ma du ma ko faale wala des fois mu wax mu bosé du ma ko rek parce que xale. ni yàlla bindee xale moo doy waar. Mm. xale diggante xale ak mag. Mm. xale doj la. te mag ndox la te boo bindee ci kaw ndox mu faru te boo bindee ci kaw doj mu des fa xale lépp loo koy def bi muy xale su màggee du ko fàtte da koy répété waat dans la mémoire mémoire ah. xale mm. day fàttaliku dëgg la mais mémoire mag day fàtte dëgg kon nag mm. góorgóorlu mooy lu Youssou Ndour di faral di wax naan lu ma gën di màgg waaw xel mi daal di mel ni banque waaw ah. merci beaucoup parce que day rappelé wu. dëgg la yaa ngi dégg yaa ngi wax lu am moo tax offension bi war am. Mimi Touré xale yu jigéen yi faw ñu wax ñoom ci benn côté. jonge gi. ah dañu jonge gi cuuraay bi. billaahi. sëri yi sëri yi. daraa yi. paccax paccax gi. parfum yi. billaahi. position yi sax si jonge rek. waa léegi bu résultat bi jonge bi génnee. waaw ba mu leen ne te lu ne woon que ci yooyu yëpp ci jonge googu ndax laajul nga gën a couvrir résultat wu jonge bi mooy xale ba ca judd. waa mooy sa banque sa bank ngo waaw sa banque de données effort bi nga xam loolu yëpp. waaw yow boo la ca xel la la mu doon. la ca judd war nga ko. sàmm ca yow loo mën bu guddi jotee. Hmm. nga delloo njukkal. <clears throat> jaaxaan ni faax. wallaahi day sàmm. bu sa borom kër sonnee sa nga tëpp tëppal ko. ndeysaan. mu ne la lan la. li yaay doo fi nelawee. ceeb bi doy na lekk sama yàpp moom nelawul. <laughs> bu résultat yi génn. waaw xanaa. boo amee résultat. war nga téye sa résultat. dëgg dëgg ba pare kat yàlla bu neexoon. doomi aadama yi di judd ni bokkaseer yi di juddoo. billaay mbaam mbaamu xuur juddu putu wadd daw. mais putu putu un à un lu koy def pour nga am deux fois un sax problème la. dëgg la ah léegi. Touré mënatoo am deux un. mu yee aka teel. pour nga xëy suba rek am siix dafa jafe. Eh. yombul de. lu tax nga wax. mu yee tegal concours siix si koñ bi nga xool. un million boo ko tegee amaana un an bi doo gis résultat doo joxe si un million nga naan malade léegi nag yàlla may la doom nga war a téye sa doom ni ko ñàpp maintenant xoolal bàyyi may ñu nu bëggee si xoolal muus yonent li muy ñàkk ñàkk kattan yar ko yonent bi boo bëggee song doomam mu génn ay weeyam jàkkaarlu ko yow dèjà muus rek doy na waxtaane ndax da gis ni muus jongeem café wu ka de eh? bala undu eh. set undu yu góor dinañ topp undu bi xeex bee tulla la ci koñ bi ba kar yàlla di jot ku góor ka di jot ci moom bu ca juree doom nag eh doon naan ko ñàppute waaye ñun nit ñi ñun doomi aadama mindeef ay waaye ñun bat ñi adama yi boo téewu sa doom ko juree suñu doom yi ay ngala ngir yàlla na leen téye eh. jonge gi neex na lool ndax nag boo xoolee ba ci biir politique la boo xamante ni jigéen ñaa ngi koy def naan man dama jonge. ooy diw amagul lépp eh, te amagul doom de eh yow diw sëy bi ba léegi amagul si doom mm. ay waay nga topp sëriñ si mm. sëriñ bi mm. diw dem de doom laa bëgg. sëriñ yi ñoom it jël cuuraay yi. day saan fu nañu suur la wallaahi am na si xale jigéen xam dañuy dem ba ci sëriñ yi. day saan fu teeku. oh. sëriñ yi. ah xale jigéen dem ba ci sëriñ yi. sëriñ ah. leen ay cuuraay. kon de waxuma ñu am na ñoo xam dañuy suuru ba mujj gi dañuy jonkal nii laa toogee ci plateau bi sëriñ bi jàkkaarloog ñoom naan leen na dugg rek na suuraay si dugg ba suuraay si dugg yàlla may la ci doom ci kàttan ak maa xam nga jël sa doom yow mel na comme si que oh, sëy dafa garaaw sëy nan wax wax ji mu dee nanu téye xale yi té la comment ça sant bis bu nekk ray bu nu rey taabul yaa ngoone yaa ngi koy seetaan ci télé yi bis ne nga gis ci réew mi sëy dëgg daal ku ko ragal boo faatoo yàlla jàkkaarloog yow. ñenn ci ñoom waaye déglu rek fii sëriñ boo fi gis yàlla may naka xam-xam muy ñaanal doomi aadama pour hmm. bu soxlaa leer. Hmm. ban yoon lay jaar. ba ñaka lislaam nee na la booy sëy sa do sa jabar am na ñaan yoo xam ne boo ko ñaanee yàlla may la. si doom waaw am na aaya boo xam ne gis naa ko. ñaari paas la bu ma jaxaseeg. aaya aaya bi ñaari paas la dama ne ci événement. song sama événement moo jaxaseeg réew mi li may wax dafa leer. macha allah léegi nag membre gouvernement bi. waaw kay. surtout ministre de la force de l'ordre eh, ministre de l'intérieur avant ministre de l'intérieur d'abord. ah ministre bi nga xam ne moo charge familial. ministre de famille de xaw ma lan peuple social xaw ma lan. waa ji xamatuma nu mu tuddati. xëy na Rwanda. waaw waaw yow am nañu ministre familial. xaw ma ministre de la famille et de l'action sociale. waaw. Wara Sarr la xaw ma. Wara Sarr kii ca kaw la. Mariama Sarr. Mariam ah ma mère Mara Sarr baal ma sama jiw ndax yow mbiru soxlaa. waa ah, ci dara ah mère mère nekk ministre de la famille de l'action sociale kan amul ah. xanaa coalition day am bu booba. Mm, léegi nag ministre bi Waré Sarr am nga liggéey bu rëy. dëgg la. Waré Sarr amatoo benn pouvoir toog di nelaw man Waré Sarr bi xanaa day bëgg nekk ministre ay man wa mère Waré baal ma kii Sarr nu mu tuddati. Anta Sarr xaw ma. madame Sarr rek mu jeex. saareen bi ministre bi jàppaleel xale yi da nga woo ñëw fii ci allo 12. waaw commission commission commission bi nga xam ne bëgg nga koy jàllale. ndax Touré xam nga ni xale yi. te ay moom it xale yi. sëñ Saliou Touré dañu toog mag ñu war a def sensibilisation. war a aar xale yi. est-ce xam nga ni xale yi ñoo jëlal seen bopp. sensibilisation sensibilisation. waaw ñoo yee. wuy ma dama lay jox exemple. xoolal xale bi. xale yéen xale yow laay waxal yéen xale ku leen may leen toog nga bañ ku leen may leen saafara nga bañ ku leen may leen julloo nga bañ ku leen wax kaay ma may leen fukki nga bañ yaa ngi dégg loolu baaxul foo ko defee dañ lay sàcc yaa ngi dégg ngeen li xale bi wax mi ngi noonu xale bi nag li mu wax leer na wax naag moroomi xaleem te yaakaar naa communication fa la gën a gaaw waaye nag jot nañ ñu def campagne de sensibilisation Touré yaa ngi fi maa ngi fi ministre bi nga xam moo yor wàllu action sociale ak ñi yor sécurité nationale bi maanaam ministère de l' intérieur président de la république monsieur son excellence monsieur le président de la république monsieur Macky Sall ñu ngi lay lancer appel ñun pare nañu ñun dugg partout au Sénégal sans ou avec les moyens yoonu jox. xanaa da ngay dox sa aval la. <laughs> say boo koy wax loo xam de loo ko wax loolu lay def kon nag ñi ngi ñaan yàlla jàmm ci réew mi. ñaan yàlla jàmm ci sutura. wallaay man nag dama bëgg. aywa ñu taxawu xale yi. dëgg la yërëm leen. muminu yàlla yoon baax yi fi newoon yëpp. san dañ doon yërëm xale yi. di jàppale xale yi. dëgg la ay man dama xam ni xaleel xaleel xaleel lan la mënal. ah oh. lii daan métti na. lii dama ragal pétrole beeg gaz bi daal di. fay faf waaw waaw parce yi moom yéen jigul sunu réew. trop ture nuyu nag sunu cadre bi ah sunu xarit bi. Euh, mu am nag. benn sénégalais boo xamante ni Paris la dem. Uh-huh. sàcc fa benn xale tubaab. ture ma bëgg kooku tey jii bu ñëwee Sénégal yow loo koy wax. du yoon. waaw waroo représenter ce pays. <laughs> nekk sénégalais. dëgg la lu bon di am si réew mi ñu si. dëgg la benn sénégalais. dégg de. loolu te yàlla mi dara tewul dem na ci biir avion bi. caméra de surveillance yi capturé nañu kanam waa ji wërale nañu ko ci at bi kooku bis mun nga jàppee yaakaar naa photo bi suñu réalisateur bu dee am na ko léegi lan ma signal ni am nañu ko. nan ko def ñàkk dañ ko génne nañu ko weer génne leen photo bi i den Diouf <laughs> Tafa xale baa ngi nii. eh. sëy dañu juum contouré ma Sénégal xam nu information. déglu rek kii séquma ak moom dara. xaw ma ko nii daje. ay leer de bëgguma benn problème bu benn site jëlaat affaire bi di ko reprendre di ko jal yokk wax ngeen mën kii séquma ak moom dara nii dajanteeg moom mi ngi noonu. séquma moom dara tubaab yi nelaw yi yëpp di nelaw ba moo tax gis nga <laughs> ñii dañu juum de <laughs> man dama nekk ci événement bu rëy zone de turbulence bi ban fa excès maa ko yee ni ko ñu ngi sàcc xale <laughs> jërë ngeen jëf ngeen baal nu àq ah, di leen jox rendez-vous le 6 foofu ca CICES le 7 ñu jox leen rendez-vous foofu ca nga xam ne mooy Sam's Prestige le 8 ah jox leen nag rendez ndar yi tàmbali leen. waaw pour waajal bis bi. waaw waaw dama bëgg. Uh-huh. bis boobu Touré. na cosaan génn. waaw ndar. na gan yi xam ni ndar am na culture. waaw waaw dama bëgg bis boobu le huit. du yomb de. ah. na fa naa di génn. waaw waaw. tàmbalee ko loolu pondo xoole. gendar goxu mbaaj. gendar goxu mbaaj. lew na okuleer si doone site police. bàyyiwunu fenn jàmminaar pikin sor dàgga okoleer njolo fen bala koos sanc ba sanc ba goxu mbaaj bàyyiwunu benn quartier fenn medina Course medina Bois barke yonent bi sor waaw waaw bàyyiwuñu benn dagga woo artiste comédien ko ñu xorom waaw ko ñu xorom gi yëpp waaw koñ di woo góo sama xarit boobu waaw waaw waaw Zagrabine waaw di woo nag président Alpha Sy Diong ndeysaan di woo artiste comédien yëpp moniteur yi waaw ñëpp nañu génn waaw fanaa na génn waaw waaw Marie Martin Sane yi génn Golbert Diagne na sambaxal yi génn nee la di dem ah Maodo Wele waaw ñaaña njaay wa Pape Sène artiste yëpp na dix mille problème waaw ëxlal mawti waaw waaw dibiteurs yi nit na ñëpp génn artiste ndar na ñëpp nan ko nan ko fulfulaale nan ko fulfulaale la man Simon maa ngi seetaan télé sénégal point com